بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
jazakum allahu xayra bismillahi irrahmani irrahim suñu borom mu ne sabbih isma rabbika al a'la sabbaalal ay sellalal su turu borom bi gën a kawe allazi xalaqa fa sawwa moom mi nga xam ne moo bind daa di melal yemelalem bind wallazi qaddara fa hada moom mi nga xam ne moo dogal ca moo jubal wallazi axraja almar'a moom mi nga xam ne moo génne xont ba nekk ci kaw suuf fa ja'alahu ghusaan ahwa gannaaw ba mu def ko mbopp moo xam ne mbopp bu ñuul la sa nuqri'uka fala tansa daañ la jàngal ba doo fàtte illa ma sha allah xanaa lu dul la ca soob yàlla innahu ya'lamu aljahra wa ma yaxfa yàlla mooma day xam ne lépp lu ñuy feeñal ak lépp la gën a nëbbu wa nuyassiruka lil yusra te ñun day daañ la yombalal ca yoon wu yomb wa fa zakkir in nafaati zikra del waaraate su dee waaraate dana jëriñ sa yazakkaru man yaxsha dana fàttaliku on ka nga xam ne mooy karagal yàlla wa yatajannabuha al ashqa doonte ne dana ko sori ka nga xam ne moo gën a texee di allazi yasla annaar al kubra kooku nga xam ne daañ ko béel tabbal ko ca sawara bu màgg ba summa la yamuutu fiha wala yaxya gannaaw bu du fa dund te du fa du fa dee te du fa dund qad aflaha man tazakka texe na de ka nga xam ne dafa sellal bakkanam wa zakara isma rabbihi fa salla daa di tudd turu boroomam daa di jóg julli daa di julli waaye bal tu'thiruuna alxayaata dunya li am mooy li ëpp ci yéen dañoo gënale dunduk àdduna wal axiratu xayrun wa abqa donte ne alaxira moo gën ca mooy gën a sax inna haada la fi suxufi al ula lii day nekk na ca la nga xam ne mooy kayit yu jëkk ya suxufi ibrahima wa muusa kayit yañ joxoon ibrahim ak muusa mi ngi noonu mbokk saar bii de suratul ala jàpp naa xam ngeen ne bokk na ci gën a siiw ci téereb yàlla bi rasul sallallahu alayhi wa sallam bëri woon lool di ko jàng bisu aljuma di ko booreeg saar bi ci tege muy suratul ghashiya bëri woon lool di ko jàng ci iit bal dañ ne aljuma daana tombe ak iit yonent bi alayhi salaam jàng ñaari saar yi ci iit gi ci suba jàngaat ñaari saar yi ca ajjuma ja ci même même jour bi bu daan jàng bu daan def shafa ak witre la ëppoon sabbih isma rabbikal a'la la daan jëkka tari doog caa tequl yaa ayyuhal kaafiruun loolee mbokk du dara du dul bëggoon julit ñi di ko dégg lu baree baree bari bam sax ci seen biir xol ya suñu borom ubbee ko ne sellalal sa turu borom mbokk suñu borom dañ ko war a sellal ca mooy xam ne amul bokkaale amul moroom amul doom amul benn ayib bu nekk ci moom dara melul ne moom heure boo koy xalaat nu mu war a mel rek sabbaaloo ko heure boo xalaat nu yàlla mën a mel rek waxal subhanallah doonte ni it noonu la gën a kawe lu mu mën a doon loo gën loo xalaat rek yàlla ko gën a kawe loo xalaat rek yàlla ko gën a kawe looloo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan ñu sant ñu def ko fi ñu gën a torox loole suñu borom bokk doomu aadama lim gën a fonk ci yaramam mooy kanamam kanam gooy gi nga jël ko dëpp ko ci suuf yonent bi alayhi salaam ne kenn ceen bii sujud na jël bakkanam ak jéem teg ci suuf donte la ñu bëri seen jërëg la ñuy teg loolu erreur la yonent bi dana yàlla sant na ma ma sujud ci juróom ñaari cir mu commencé daa ji ne jë jël loxoom ba tedd ba teg ca bakkanam daa ji ne jë pour wane ne nekkati jë bi moog bakkan bi ñoo ànd doog wax ñaari loxo yi doog wax ñaari oom yi doog wax ñaari cati tànk yi kon boo jëlee sa la gën a tedd dëpp ci suuf ca ngay wax subhana rabbiyal a'la sell ñeel na suma borom bi gën a kawe borom boobu mooy kan mooy ki bind lépp xaaliqu kulli shay malaaka yi nit ñi jinne yi xar yeeg mbaam yi géej yeeg àll yi lu mu mën a doon xaaliqu kulli shay doonte ne moo melal kulla shay lu mu mën a doon moo ko melal lu ko neex mu bind nit bind gaynde bind golo ci biir nit ñi mu def leen des milliards d'espèces yoo xam ne kenn nuróowul ak sa moroom noonu la def lépp gannaaw bi it moo dogal lu ko neex ci jaam yi ci seen kem ñaata la ñu war a doon ñan ñooy ñuul ñan ñooy weex lu ñu war a dund lu ñu war a dundee ila axiri waaye it mooy ko jubal mooy ko jubal doomu aadama yi ba ñu mën a xam lu ñu nekk ci kaw suuf mooy ko jubal bàyyi ma yi benn xar ngay gis fii léegi mu wasin toogal seetaan quelque temps rek nga gis doom ji ne kayang kayang kayang dem ci weenu yaay bi commencé naam kan moo ko jubal ci loolu mi ngi noonu yu gën a yéeme nga xam ne da nga koy gis ay mbonaat yuy génn ci géej gi bu ñu demee ci tefes gi nen fa suul nen ya quelque temps après nen yi daal di génn bu ñu génnee rek seen tànk yàlla yi ñu jaar delluwaat ci géej ga bal lu gën a yéeme ay picc yoo xam ne daañ jógee Occident traversé océan ñëw fii ci ay parc de Djoudj ñëw jur fi ba nen fi seen nen dem ni bi nen yi bu ñuy toj ba commencé mën a naaw rek jël seen tànk yaay dellu Occident ku leen jubal ci loolu kon mi ngi noonu mooy hëda donte ne noonu mu defee hëda doomu doomu aadama yi ak bàyyuma yi ni ñu mën a def ba dund ci kaw suuf naka noonu di hëda moo jubale yoonu njub boo xam ne nit ñi mën nañ cee jaar ba jaamu ko mi ngi noonu borom boobu mu ne moo génne gàncax ga génne gàncax ga ca la nit ñi di lekk ak la bàyyuma yi di lekk suuf saa ngi ni wow koŋ mu gàddi génne fataral arda mi ngi noonu génn ci façon gàncax gu nekk bahit karim taaru rafet waaye balaa quelque temps rek borom bi indi ay ngelawu jaasam mu ñëw upp ko mu wow koŋ lax daa di tasaaro ghussaan ahwa ki def loolu mooy borom bi jalla wa ala bu nawet jotee mu reprendre ko encore muy wañe ne yéen doomu aadama yi dund ko dee yàlla mën mën na leen a génne xoola chaque année yàlla indi gàncax seen kanam ngeen gis mu def ko lépp mboob ngeen taal seeni sibb mu génn waat ko encore kay kii ku ci xalaat xam ne yàlla mën na génn waat nit ñi léegi nag mën a yonent yàlla bi ne sa xel dal yonent yi dafa woon problème ci yàlla wax ak moom ba pare mu koy fàtte borom bi nag na ko déedéet doo fàtte sa nuqri uka fala tansa illa ma sha allah doo fàtte lu dul neex yàlla te it yàlla moo ko soob léeg-léeg yenn aaya yi mu man suuxal ko daa ji ne ma nansax min ayatin aw nunsiha naati bi xayrin minha aw misliha lépp loo xam ne dañ koo ab dañ koo nasaxal abrogé ko ci ay aaya wala ñu fàtte loolu ko daañ indi lu ko gën waaye amma li ñu war a jëfe moom na sa xel dal doo ko fàtte mukk borom boobu subhanahu wa taala ni maa lay jàngal mi ngi noonu ba doo fàtte lu dul neex yàlla yàlla moo mën a xamal ni li ngeen di wax ci kaw xam na ko li ngeen di nëbb seen biir dënn yi xam na ko li ngeen di wax ci kaw xam na ko li ngeen di nëbb ci seen biir dënn yi xam na ko yàlla moom it mu ne yow danaa la yombalal ak yombal no am rasul sallallahu alayhi wasallam mission bi gën a diis ci mission yi la yàlla tegoon ci loosam waaye fa lillahi alhamd yàlla yombalal na ko ba mu réussir ci mission mi ngi noonu ca it diine ji gën a sell diine ji gën a woyof la ko yàlla tànnal diine lislaam benn xaraj amu ci wa ma jaala alaykum fi diine min xaraj lépp yàlla subhanahu wa taala da ko yombal loolu tax xeetam ku mën a taxaw julli taxawal mënoo taxaw toogal woor mën nga war wooral mënoo woor bàyyil da ngaa nekk ci tukki yombal nañ la lépp loo xam ne nii ak mbir yombal rek yàlla defal na ko diine ji gannaaw ba nag del waaraate bu dee waaraate dana jëriñ fa zakkir in nafaati zikra ba bari ci borom xam-xam yi di ko firee ni del waaraate fa waaraate bi ji jëriñi te it mbokk diine dafa bëgg suñu borom ni udu ila rabbika bil hikmati wal mawizati al hasana heure booy waaraate del waaraate ci xikma am na koo xamee ne nii boo taxawee ci kanamu mbooloo mi wax ak moom du lu dégg mukk waaye boo wéeteeg moom wax ak moom mu dégg am na yéen ndaw ñi koo xam ne nii ay darajaam ndaw bu ñëw doo xam moom du lu dégg waaye bu dee ku tolloog moom mën na wax ak moom mu dégg contraire ba it am na ndaw ñoo xam ne jàpp nañu pay yi di soo dépassé waaye seen moroomu jeune ba tolloog ñoom xam àdduna comme ñoom bu toogoo ñoom wax ak ñoom daañ dégg kon lu nekk rek del waaraate fa zakkir waaraate gom kenn du ko bàyyi waaye ni ñuy waare ku góor ki bokkul ni ñuy waare ku jigéen ki ni ñuy waare ki xam te jëfewul bokkul ni ñuy waare ki xamul dara ni ñuy waare ki musul dégg lislaam bokkul koo xam ne daa juddoo ci dëkk lislaam lu nekk rek xoolal al xikma booy jaar ngiree waaraate ba mën a jëriñ mi ngi noonu borom bi nag ne boo waaree ki ragal yàlla moom dana waaru mi ngi noonu ca kooku yàlla moo ko xam mbokk yàlla rek moo xam fan la waaraate di jëriñ yow sa warugoor mooy waxal rek innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha bari na wax joo wax jàpp ne du dara yàlla subhanahu wa taala jaara ci gindi ci doomu aadama mi ngi noonu ci wax bu doo xam ne du dara yàlla jaara ci gindi doomu aadama bokk na la la koy may rek la ngay wax na sell koy waxal ci diine ji waxal ak moom jublu ci rek yàlla yàlla gindi ko jublu ci yàlla tax yàlla mën na ko teew baaxee daal di koy gindi gis ngeen amma nag ko texee di ka ku mel nii moom loo ko mën a wax égal zéro ak bari ay doomi julit yoo xam ne dem nañ ci université yi am fa doctorat ci tawhid doctorat ci fiqh ba pare gën a kàccoor firawna lu waral loolu mooy dafa texee di loolu kenn mënu ci dara comme ni mu amoon yeneen doomi yeneen yu texee di soxna yeneen yu texee di ca ñoo ñoo yeneen yi ñoo bokkoon benn kër kon ka nga xam ne dafa texee di moom dana ko woon gannaaw kooku nga xam ne safara bu kawe bu màgg mi ngi koy xaar mi nga noonu ak ku mën a doon borom boobu nag subhanahu wa taala ni waa sawara du ñu dund ca waa sawara du ñu dee na am la ñu nekk dug dund koo xam ne dee ngi lay dikkal fu nekk dee mbugal yoo xam ne mbugal yu safaanoo la loolu kenn mënu ko tuddeg dund waaye nag doo dee dañ ñaan malaaka yi yaa malik waxal sa borom li yaqdi alayna ngir mu rey mu ne déedéet innakum makisun du ngeen dee ko defee dee ci àdduna dana nekk xéewal ngi noonu waaye alaxira kenn du fa dee waa ajana du ñu dee waa sawra du ñu dee dee amul rasul sallallahu alayhi wasallam nee na yàlla day wax malaaka yi ñu yëkkati benn mindaa fon dafay xaw a mel ne am koy mu ne yéen waa ajana ndax xam ngeen kii ñu ne waa kooku mooy dee yéen waa sawara xam ngeen kii ñu ne waa kooku mooy dee suñu borom ne malaaka yi rey leen dee ñu rey dee ñu ne dee dee na de yéen waa ajana xulut du ngeen dee ba faw yéen waa sawara xulut du ngeen dee ba faw gis ngeen dee amatul jeex na borom boobu nag subhanahu wa taala ni texe na ka nga xam ne dafa sellal bakkanam te mbokk bakkan bi la am maaratun bi su sa bakkan da lay digal lu bon da ngay xeex ak moom mi ngi noonu ba jàng diine yàlla ji mooy xeex bi jëkk bi nga war a jëkk xeex ak moom xeex ak sa bakkan ba jéem a jàng diine yàlla ji gannaaw ba xeex ak moom ba defe ndigal yi xeex ak moom ba bàyyi tere yi képp koo xam ne sellal na sa bakkan ci lii ba pare sax di tudd yàlla zikrullah boole la gën a màgg ci zikrullah moom mooy julli ca mbokk zikrullah mooy alimenter bakkan mooy sàmm bakkan tant que yaa ngi def zikrullah seytaane mi ngi lay daw tant que yaa ngi sàggane zikrullah seytaane mi ngi jaxasoo ak yow moo tudd tur yàlla daal di julli wante ne lenn ci mufassiru nii dañ koy firee aay bi wàcc na ci julli iidu korité mi ngi noonu qad aflaha man tazakka mooy ki xëy génne azaka muuram kooram wa zakar isma rabbihi bari li tudd yàlla ca place jullikaay ba ba imam ñëwee mu ànd ak moom fa salla mu julli ku mel nii da ngay gis ne texe gu rëy dana ko ñeel borom bi nag mu ne waaye la ëpp ci yéen dañoo gën la dunduk àdduna ca àllaaxira day mooy la gën ca mooy la sax te it mbokk julit réalité la boo xam ne ñëpp xam nañ ko mooy julit mooy waa suuf àdduna lañ gën a jox cër ka diine bu yemoon ci yéeféri du problème waaye lu ci bëri ci ndaw ci ci julit ñi loolu da leen di dal masalan xoolal tey doomu julit yàlla wërsëgal ko doom à partir de deux ans mu yóbbu crèche jardin d'enfants mu jaar primaire dem secondaire am bac mu sànni Canada wala New York xale bi musul taxaw fuñ ne ko Allah musul taxaw fuñ ne ko bismillah lan mooy jubluwaayam ci loolu yóbbu école yi gën a kawe mooy ngir mu réussir ci àdduna waaw kii bu nee ne àdduna la gënal àdduna ndax daañ ko gëm la wallahi waa ji nga xam ne jël na ay alal judul jeex rënk ci banque yi gis pauvre yi nekk fii gis projet islamique yi nekk fii amul leen lu mu ca def ku mel nii bu nee ne àllaaxira ko gënal ndax des na ko gëm déedéet su ko defee kon yow jullit yaay le contraire yaay ka ngay xam ne da ngay jëfee la ñu santoon qaaruun wabtaghi fi ma ataaka allahu daar al axira wala tansa nasibaka min addunia su dee njaboot gi sa projet bi gën a rëy ci sa njaboot fexe ba ñu nekk ay jaami yàlla góor ak jigéen mag ak ndaw nga fexe ba ñuy nekk jaami yàlla di julli di woor di wéetal yàlla loolu mooy grand le plus grand de tes projets yeneen ci def yëpp c'est secondaire affaire wërsëg moom yàllaa ko yor waaye sa jubluwaay fexeel ñu nekk jaamu yàlla qu anfusakum wa ahlikum naara alal ji it fexeel ba tàggat ko ci li neex yàlla mi ngi noonu xam-xam bi tàggat ko ci li neex yàlla lii mooy la nga xam ne mooy war a gëru julit borom boobu nag ne lii day nekk na ca kayit yu jëkk yeen joxoon ibrahim ak Moussa mooy kayit yeen joxoon ibrahim ak yeen joxoon Moussa loolu bokkul ak téere ya ak suxufu Moussa moo jiitu tawraat su ko defee bokk na lu leen yàlla waxoon mooy ay yéen nit ñi xam leen ne day qad aflaha man tazakka وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى لي دب يننتي يلا إبراهيم عليه السلام بابا يننتي يلا محمد amul benn yonent bu yàlla mësa yónni lu dul téere ya nga yor yàlla bind na ca aaya yi yal na yàlla boole ñu ci ña gënale alaxira ci kaw adduna waaye it yal nañu yàlla boole ñu muy tabbal ajjana ci musal leen ci sawara yal na yàlla sellal suñuy bakkan sellal mbakkanu njaboot gi ak bépp julit wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain waaw xam naa bu dee laaj yi jaar ci internet bi kii moom dafay laaj ndax julit mën na gis yàlla ci ay gént loolu day borom xam-xam yi saxal nañ ko doonte ne charte yañ cay teg mooy ka ngay gis du yor melokaanu jaamu yàlla bi nga xam ka ngay lam lay la ngay jële ci moom it du safaanoo ak sharia bari na seytaane di feeñu doomu aadama di ko wax may yàlla fekk du yàlla loole moo tax ba borom xam-xam yi daañu nangul koo xam ne xam nañ ci moom ak njub ak jaamu yàlla su ne gis ne suñu borom ci melokaan ca la mu wax safaanowul ak sharia ñu nangul ko loolee kii day wax la nga xamee ne nii mooy dama xëyoon dem liggéeyi ba ma demee nag julliwuma julli naa fajar ak tisbaar ba muy summeeku nag fa ma doon liggéeyee laa gis ne suma yére bii day daa taq mëniyu ca man foofu mënuma faa sangu ragal naa takkusaan bi romb ma mu ne waaw man su boobaa léegi naka lay def bu boobaa la nga xam ne moom ngay def ngir bañ takkusaan bi romb la da ngay daal di tiim julliwaat sa fajar julliwaat sa takkusaan julli non julli fajar ak tisbaar julliwaat takkusaan bala mu lay romb mi ngi noonu am amma bu doon te ne da ngaa dem sa kër nga gis ne ci ngay doog a xam loolu su boobaa moom da ngay sangu boo ragalul waxtu bu lay romb doog a fay la nga xam ne mooy yë nga julli woon kii day day wax moom ndax li nga xamee ne ni mooy qad qaamati salaa ñaari yoon qad qaamati salaat benn yoon ban moo ci gën a wér wa ala kulli xaal ñaar yëpp wér na benn bi dañ koy jële ci nodd bilaal benn bi ñu jële ko ci abi mahzura doonte ne ba yonent bi alayhi salaam doon dund moom bilal moo ko doon noddal mooy julleem yépp moom dañ doon wax qad qaamati salaa ñaari yoon ma tax lu bari ci ñuy gëstu ñoom gënale qad qaamati salaat ñaari yoon waaye ñaar yépp lu wér la wallahu subhanahu wa taala aalam anam bismillah naam ah naam non kii mu ne yaayam dafa màgget munta woor léegi day def moom bu wooree weeru koor ba pare jël beneen woor beneen weer wooral ko yaayam kooku day yal na yàlla fay ko ci jëf ju baax jooju muy def waaye nag daa juum mbokk nit kiy dund dee su ko wooral nit kiy dund day mën a woor ba munta woor ñu koy génneel bés bu nekk kilo ceeb di ko ko sarxel su ko defee la moo doon def mooy lijjante trente kilo ceeb sarxel ko yaayam koor googee teggeeku na ko amma bu doon yaay ji daa faatu comme deuxième question bi ki nga xam ne nee na frère moo faatu bàyyi baru koor su ba bàyyi dañuy seet bàyyi bàyyi baru koor bi lu tax mu bàyyi ko mooy amoon na baru koor ci feebaram wóoru ko dem na ba wér fayu ko ku mel noonee ay jegañaaleem dañ ko ko war a fayal suñ ko fayalee loolu lu baax la doonte ne buñ ko génneli woon ceeb comme nañ wax ci ku jëkk ka it loolee lu baax la boo demoon lu mel ne mësab Malik ñoom génneel ceeb bi moo leen gënal que ñu koy wooral waaye it yonent bi alayhi salaam nee na képp ku dee bàyyi koor na ko wooral waliyuhu mooy koo xam ne aji jega ñaaleem la kon daal ci gàttal ki bàyyi baru koor fekk ne da ko fayul waaye mën na ko fay fayu ko su doonte ne feebar ba tax mu am bor ci la kuunci ne ba faatu loolu duñ ko tudde bor ndax yàlla moo ko teg ngant ba muy dee mais li ñuy tudde bor mooy wér na ca fayul amma bu dee ne koo xam ne aju dund la ku mel noonu day mën a woor woor bu munta woor mu génne lu muy sarxe wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah benn waay mu ne dafa wax ne dégg ci ñu ne yàlla subhanahu wa taala loxo yàlla lan la ci jublu mooy kattanam boo ko tafsir boobu du tafsir bu jub tafsir bu jub mooy wax yooyu ña koy wax mooy ay mu'tazila ak ñeneen ñu dul ñoom waaye la nga xam ne ahlu sunnati wal jamaa la ñu saxal te muy dëgg mooy yàlla bu ne am na loxo dañ naan yàlla am na loxo ca itamit loxo yàlla nu mel ñu ne laysa ka mislihi shay suñu borom mu ne bal ndax waxul yaddu daf na yadaahu yàlla daf na yadaahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha ay loxoom mën ko talal di joxe lu ko neex su ko defee dañuy gëm ne yàlla am na ay loxo waaye nu loxo yee mel laysa ka mislihi shay yàlla dara melul ne moom yàlla mu ne ala ayni samay bët maa ngi lay sàmm yàlla am na bët nu mel dara melul ne moom mi ngi mel ni ngay gëmee yàlla am na jëmm ndax man ngaa weddi ne yàlla am na jëmm ku weddin yàlla am na jëmm kay kon yàlla amut am déet dañu ñëpp gëm nañ yàlla am na jëmm nu jëmm yàlla mel kenn xamu ko naka noonu nit yàlla yàlla saxalal boppam ci ay cër dañ koy saxalal yàlla boole saxal nag ne laysa kamislihi shay moo tax suñu borom ne laysa kamislihi shay'in wa huwa sami samiul basir yàlla mu ne dara melul ne moom donte ne mi ngi dégg mi ngi gis kiy dégg daam lu muy dégg ki gis daam lu muy gisee kon loolu la am maa nekk nag di détaillé loxo yàlla mooy lii kàttanu yàlla mooy loolu ay détail la kon ñu mujjee ca mbokk bee rek bismillah waaw waaw waaw loolu da xanaa ñoom daara ñoom Ousmane ñoom wala daara yi ñoo koy wax waaw sa nuquri u ko fala tansa mu ne sooy aay boobu nga xam ne suñu borom danaan daan la jàngal ba doo fàtte soo koy wax doo doo nekk di aji fàtte waaw loolu xamuñu ko ci sunna man nga daal ñaan yàlla e yàlla yow mi wax wàcc ci sab yonent sa nuquri u ko fala tansa danaa la jàngal ba doo fàtte man it yàlla nag ma jàppale ba li may jàng ma bañ koo fàtte waaw borom bi wax na yonente bi alayhi salaam wa qul rabbi zidni ilma yàlla waxal dolli ma xam-xam yow it nga ne yàlla yàlla yàlla nag ma dolli xam-xam kon yàlla nañu yàlla xamal lépp lu ñuy jëriñ ci wërsëg la ñu bañ koo fàtte yàlla nañu dolli xam-xam bu ñu koy jegeel yàlla nañu yàlla may aafiya fi dunya wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain